ñaari couple yoo xam ne dañuy nekk bëggante ñu bëggante lool di ànd di yëkkateendoo di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo comme ni ñu koy waxee yàlla dogal ñu dem ba ba ci yàgg amadu ci nga xam ne mooy ko góor ki waajuram ne ko léegi dama bëgg nga daal di takk soxna parce que luy jot jot na ginnaaw dee mu dem euh, daal di war a dem ñaani soxna kii di Roqaya daal di yebal waajuram góor ci kër waajuru kii di roq ya dem pour ñu waxtaanee pour ñu fasal ko soxna bi nga xamee ne dem nañ ba egg ci loolu euh, ñu dem daal di yónnee bi nga xamee ne yónnee nañ ci kër waajuru kii di Roqaya daal di waxtaan comme ni ñu koy defee dem ñaan dañoo doggoon seen doom ji ngeen may ñu ko waaye dafa am tuuti lu ci ñuul li nga xam ne moo ci ñuul moo di ne euh, Amidou moom dafa nekkoon lawbe mu di affaire u caste xam nga ku ne xam na ne mu affaire de caste. Euh, sonal nañu parce que li muy indi ay problème bëri na ci société bi yàlla dogal euh, mu nekk lawbe ñu dem ba dara desul lu du takk waajuru ku jigéen ki di roqee ne duñ la ko may ndax yéen ay lawbe ngeen te ñun ay géer lañu euh, muy lu metti di lu doy waar ndax bëggante nit ba yaakaar sëy rek des ci ñu ne duñ la ko may te liñ naan waxe waajur waaw la waaw la waaw la la tudd day daal di metti ginnaaw bi noonu ñuy dem di dem Eh, waajur yi gàntu nañu mais ña ngay wéyal di doxal seen bëggeel ñoom ñaar di ànd di bëggante di ànd di bëggante ba benn jour Rokhaya daal di woolu du ñu dem quelque part toog daal di jël verre daal di waxtaan mu ne ko man solution bi nga xam ne moom laa gis pour suñuy waajur maye ñu moo di ne eh, maanaam nga nga nga ëmbal ma waaw comme te ñoom bëggante nañu ñëw nañ ba toll fii ne nee nañ duñ ñu maye léegi xam naa ne bis bu ñu amee doom ñun ñaar eh, dinañ ñu maye ñun ñaar noonee Amadou daal di koy déggal daal di sëkk ak moom yàlla dogal ëmb daal ci daal ci sosoo ñu doxal 6 mois euh, mbokk yi nga xam ne ñoo gàntu woon gis nañu ne lii kat bañ amatu fa ndax deret fu mu xas ba jaxasoo rek moom bañ amatu fa ndax comme ëmbal na ko rek doom dina fa juddoo bañ mënatu faa am law be géer amatu fa ñu daal di leen di may ñoom ñaar daal di leen di may ñu daal di sëy ñoom ñaar yàlla def ñuy sëy sëy bu neex di ànd ànd bu neex wërsëg daal di ñëw xéewal daal di ñëw Amadou daal di am alal ju dul jeex yàlla def ñu daal ci taaloo doom bu góor daal di tuddee son doom bu góor boobu duudu macha allah doom bi daal di màgg doon doom ju am barke itam mais ci diggante boobu moom Amidou takkoon na fi beneen jabar mu di deuxième femme am ak moom ñaari doom waaye roqee moom benn doom rek la am ak moom mu di duudu yàlla dogal euh, Amidou am wërsëg lool itam. yor ay entreprise yor ay oto yor ay terrain yor ay kër maanaam lépp rek loo xam ne yëf mbirum àdduna la eh, nit soxla na ko yàlla dénkoon na ko Amidou moom waaye ñaari doom yi nga xam ne moom la amoon ak deuxième femme bi yàlla def ci ñu safaanu ñoom daal duñ def lu dul di wër di agressé ak di sàcc ak di def naka su dul noonu mu di ñaari doom yi nga xam ne moom la amal ak deuxième femme bi waaye roqee mi nga xam ne moom la ay mbokkam gàntaloon doom ji nga xam ne moom lañ ci am mu di duudu mooy taaw bi waaye yàlla da koo dimbale muy doom ju baax doom ju ñëpp bëgg waaye alal ji nga xam ne moom la Amidou amoon itam duudu waggoroon na ci ba alal ji musul tasaaroo ma nga gérer entreprise yi ma nga ca terrain ma nga ca kër ya maanaam dara manqué wul lépp mu ngi koy doxal normal mu di duudu doomam joojule yàlla dogal ñuy dox di dox ba si yàgg euh, Amidou ndeysaan mag daal di ñëw bi mag ñëwee ndax dem nañ lu mat ay 30 ans 35 ans xale yi màgg nañu daal daal ne daal di jël âge liñ naan mag rek daanaka coono la daal di feebar bi mu feebaree nag li ci topp moo di daa feebartu ab diir rek ah, mu daal di gaañu ndeysaan ah, moom Amady bi mu génnee àdduna nag doom ji di duudu mu ngi continuer woon di gérer alal ji ni mu waree di ko toppatoo ni mu waree waaye ñaari doom yi nga xam ne moom la am ak euh, deuxième femme bi wax naa wax naa leen ne leen ñoom ña ngay wëyal di agresser ak di sàcc ak di def naka sudul noonu ndeysaan roqee nag moom heure bu yewoo rek euh, mi ngi xolam mi ngi sedd ci doomam ji nga xamante ne moo di duudu euh, ndax gis na ne doom joo xamante ne ñëpp bëgg nañ koo jur ndax mi ngi góorgóorlu fu mu toll kenn gisu ko ci lu ñaaw waaye kii di deuxième femme bi nag ñaari doom yi nga xam ne yàlla dénk na ko ko ni ñu nekkee neexu ko waaye mënu ci dara euh, muy li métti itam ndax kenn ku nekk boo sañoon boo juree doom moo fiy gën comme ni ñu koy waxee waaye li yàlla di dogal bi nga xam ne papa ji gaañu na mu di Amidou mu bàyyi fi ñetti doom yi góor ñaar ñee ña nga ca la leen neex waaye duudu moom mi ngi ci alalu papa ji di ko gérer li ci war yëpp mu ngi koy def bi nga xamante dem nañ ba jëm jamono euh, li ñu ne ku génn àdduna dañ ko war a miiras parce que bu ñu ko miiraasoon nee nañu du tàlli noonu ne ñu daal di dem seeti imam daal di seeti imam mu ñëw toog ak kilifa yi nga xam ne ñoo war a fekkee miiras miiras bi léegi nag coow lu rëy da cee am muy lu doy waar lu lu lu yéeme da cee am. lu yëmalal du leen lu bi ñu demee ba nga xam ne war nañ tollu ci miiras euh, kii nga xam ne moo di amidu ñu toog euh, ba ñëpp dajaloo mbokki góor ki dajaloo nañu euh, ñaari soxna yi tamit seeni mbokk dajaloo nañu ñu ne waaw tey kat la miiras mi léegi nag nañu ko miiras ndax lañu ne boo miirasut ku faatu du tàlli noonee Amadou dem jëli alal ji nga xam ne papa ji yëpp amoon na ko moo di caabi yi nga xam ne moo di caabi kër yi oto yii yëpp mu ñëw daal di koy jëppal jëppal ki nga xamante ni moo di imam bi teg ñaari uh, rakk yu góor yi toog ñaari soxna yi toog ni ma leen ko waxee mbokk yëpp toog ñi nga xam ne ñëpp daal uh, miraas bi concerné leen ñu ngi toog uh, war a fekkee miraas bi ñu toog imam daal ne nuyoo daal ne leen waaw tey de li ñuy def nii lu nga xam ne moom la ñu suñu dina sant mu di miraas bi waree dem ba miraas ñu ne ko waaw léegi ñetti doom yu góor yi la fi Amadou bàyyi mu ne waaw léegi ku ne xam ne ni miraas moom euh, bu dee jigéen la euh, dañ koy xaaj bu dee góor nuñ koy waxee sax euh, bu dee góor ñaar lay am bu dee jigéen benn waaye comme yàlla dogal ne na ne ñetti doom la am ji góor kon ñoom ñëpp ñëpp ñooy tolloole ginnaaw bi nga xamee ne imaam wax na loolu rek benn suwaay daal di jóge fee daal di ñëw daal ne am na lu ma ci war a sànni mu di koo xamante ne ni ah, moom dafa yàgg ànd ak kii nga xamante ne moo di Amadou ñu yàgg ànd bu fekkee lépp maanaam Euh, alors bi nga xamee ne nag laaj na kàddu gi bañ jox ko ko lu rëy dafa daf ca am muy day waar mu di xarit ba mu laajee dana leen li ma ci war a wax moo di ne duudu mii nga xam ne moo di taaw baayam ñu ne am ah, mu ko moom bokkul ci alal gi te du don muy lu yéeme itam ndax nee naa leen duudu alal ji durant li papam di dund moo ko géré bi papam bi mu fi jógee moom moo géré alal ji te papam tamit nekkoon ko amutur nekkoon ci dëkk bi nekkoon ko bari alal koo xam ne ñëpp xamoon nañu ko kon alal ja du lu ndaw te duudu moo ko géré woon te dara mus ci manqué musul am benn problème musuñu ci am benn jafe-jafe xarit bi daal na leen duudu li tax du bokk ci ci miraas bi moo di dafa judduwul woon judduwul woon ci sëy maanaam duudu euh, bi muy juddu daa fekk papaam ak yaayam ni ma leen ko wax woon ca dibi ba maanaam affaire de caste moo waraloon ñu ne du ñu mayee ñaari xale yi yàlla dogal doom sosu ci ñu soog a sëy léegi kon kooku du donn ndax doomi jooju doomi njaaloo la duudu nag àdduna daal di koy bett loolu ndax durant li mu nekk ak papa ji wax naa leen ko mu nekkoon ko juboon ak baayam waaye gis nga ni mu sonnee ci alal ji daanaka alal ji fu mu egsi moom moo ko fa egsi ndax moo ko liggéey comme ni mu ko war a liggéeyee waaye terewul ne moom alal ja mujjewu ci doon dara dara dara moom duudu ah, muy lu metti jour boobu nag duudu ndeysaan nekk beneen nit keroog lu ne wax na ko yaayam ndax ku ne xam ne ne yenn yi léeg-léeg yaay koy teg nit wala baayam muy loo xam ne yaayam moo ko teg parce que bi ñu demee ba nettali histoire bi yaayam dane ba nga xamee ne toll nañ ci sëy samay parents ne duñ ñu ko may ci laa defee samay pexe ba doom juddu ci mooy yow mii di duudu looloo taxoon maag sa baay mii ñu daal di sëy muy lu doy waar itam duudu keroog lu na yàq na ko yaay ji lu ne wax na ko yaay ji donte euh, duudu nekkul woon sax koo xamante ne nii ku yore di ko la waaye daa doon loo xam ne lu ko bett la ndax imaginer nga juddu nekk ak sa waajuru góor di ko dimbali ci àllam mu faatu génn àdduna wóolu la ci alalam nga koy gérer yàlla dogal bi mu génn àdduna yow ndekete 15 bi gën a ndaw yow mënoo ko ci am mbokk yi loolu nag li nga xam ne moom lañ ci war a jàngate rek mooy ne jafe-jafe yi yàgg naa am ci àdduna di bëgganteeg nit ñu ne duñ la ko may ndax lii ak lii mooy tax duñ la ko may warul tax itam ngay saalit bay def loo xam ne waroo koo def jàpp naa ne même bu fekkee bañ am na ci naxante xëy na mën naa am ba sëy mën a am waaye jarut ngay dem naan ko nañu am doom bis bu ñu amee doom ba pare ah, dinañ ñu maye mi ngi noonu lor na doomam yi nga xamante ne ni moom la amoon mu nekk nit ku baax nit ku ñëpp yaakaar mu yor alalu papa ji yor ko ni mu ko war yore waaye terewut ba papa ji génne àdduna ndeysaan moom duudu doonul dara dara dara ci alal jooju nga xam ne moom la fi papa ji euh, bàyyi woon euh, mbokk yi kon muy lu doy waar ñu gën cee bàyyiwaat xel bu baax a baax liñ naan yàkkamte bu mu la tax a naan petit ndax bu rëb na ubbee gurus euh, moo nekk noonu tey kon mbokk yi ñu leen jox dig daje rek kon ci beneen numéro incha allah di leen jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup.